ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, ziar di ñaan bu baax a baax aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci prison yi ñi caabi féete ginnaaw yal na yàlla buur bi saafara seen yi euh, yitte euh, donc ban génn fi ñu nekk euh, di ñaana aussi bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo feebar nekk ci loolu hôpital yi ak nekk seen biir kër yal na saafara yal na leen saafara seen i bopp ban delluwaa seen yitte mais ñi nga xamante ni ñoo ni jiitu barsàk ñu ngi leen di ñaanal tamit yàlla buur bi teeru leen teral leen te it xaare leen ci àjjana fiix da sa yéexee di waxaat nag ñi nga xamante ni aussi ñu ngi bàyyi xel ñu leen woowee les Sénégal de la diaspora donc ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel euh, partout dans le monde euh, ñu ngi bàyyi xel Leral TV rawatina tey émission mag bi nga xamante ni moom moo di Leral Penc muy am nag saa su nekk euh, lundi ba jeudi diggante 13 ba 14h kon donc Euh, ñu ngi leen wax bienvenue nuyu nañ leen waaye nag aussi euh, duma ci wet benn yoon dama ci àndal nag ab Ablaye Naar waaye aussi ak sama góor ñu ngi koy wax peex donc peex nag mu ngi ñoo xam naa problème circulation yooyu ñoo ko jàpp donc ñu ngi koy xaar léegi léegi di ngeen ko retrouver euh, Ablaye Naar lay nuyu. Sista maa ngi lay ziar. di la bëggee. vraiment bëgg naa. naka matinal bi. sant yàlla yaa ngi koy yëg bu baax. maa ngi sant. cool. Eh, da ngaa de. waaw gis nga sañse baax la yaram da koy dégg nii nii numéro bu njëkk bi daal di nga koy. numéro bu njëkk bi nii lañ dooree. Ah, tubaarkaal macha allah <laughs> lay maa ngi lay euh, bàyyi xel jamono ji ci kër gi di leeral ak néeg bu ngeen moo xam ci télé rajo beeg euh, fu ñu bàyyi xel jamono ji ci leeral penc mi mu nekk numéro bi njëkk comme ni mu ko waxee léegi mu nekk nag vraiment émission bu neex boo xam ne da ngeen ci dégg lépp loo xam ne mooy tolluwaayu réew mi rawatina tamit li nga xam ne mooy soxal askan wi ngeen ci ànd ak seen jigéen seen xarit euh, si si njóo ba waaye tamit du ko déggee léegi dana ci ànd ak peex waaye incha allah rabbi man itam dinaa feral di jaar di leen wéttali yenn saa yi du ñàkk waaye daal wax dëgg yàlla mbégte lay doon euh, dend ak ku mel ni yow mbégte lay doon tubaarkàlla Ablaye Naar mm-hmm. tubaarkàlla boo ko waxee mu neex ndax xel it lay daal tubaarkàlla Euh, ci tey lan lañ war a waxtaanee euh, donc tey bu ñuy xalaat tey lu ñu war a waxtaanee yaakaar naa ne euh, góor da koy dundu mm-hmm. jigéen da koy dundu mm-hmm. mais mais aussi xale sax da koy dund. Mm-hmm. diggante li nar a waxtaanee tey diggante yaay ak doom sax dañ koy dund. war a yaay war a am borom kër. tubaarkàlla doom ja jógee fële. da ciy dund tamit. ndax tey yaakaar naa ne Ablaye Naar. suñu thème bi dina soxal suñu téléspectateur aussi. mais dina soxal aussi ñi nga xamante ni ñu ngi nekk suñu plateforme digitale yépp di ñu bàyyi xel donc. donc tey sunu thème euh, moom moo di firange mhm. tey nag firange tubaarkàlla Ablaye naa lu mën teg de xaar nit xam naa léegi mu yegg si. d' euh, yaa ngi euh. waxtaane lu lu lu am solo. Mhm. te yaatu nag. Mhm. xam nga firange dañ koy faral dégg boo ko waxee ñi ëpp ci li ñuy dem xele fi ñuy dem mooy jigéen guy fiire góor wala góor guy wala góor guy fiire jigéen jëm ci wàllu mbëggeel ak yeneen yu ko nuru waaye firange dafa romb foofu lu bare bari ci naka. yow wax nga ko léegi ci sa biir wax. Mm-hmm. fiiraange day feeñ ci waajur ak euh, doomam. Mm-hmm. fiiraange day feeñ ci mag ak rakk. Mm-hmm. fiiraange day feeñ ci ñaari xarit yoo xam ne ñoo bokkul lépp. dëgg la du ko xarit. dëgg la te itam euh, fiiraange li tax mu gën a yéeme mooy. maanaam xarit day am. nga xam nga xarit boo ko boo waxee xarit dëgg mooy lépp lu am da koy yéene. ngeen partagé ko. merci. waaye nag sa xarit dana am loo xam ne da nga koy xaw a yenn saay loolu fiiraange da koy def. iñaan iñaani des day am. parfois fiir bu xam nga iñaan la. noo pas fiir bu ëpp iñaan la. Mhm. mais fiiraange dafa nekk loo xam ne dafa sew. dafa sew ci biir xol la ne dafa sew. te itam li koy findeel mooy. Mhm. yenn saa yi bëgg sa bopp day tax nga fiir bëgg sa bopp maanaam. Mhm. tey damay nekk ak xarit sista Njóoba. yow maa ngi yow ñoo doorandoo. ñoo jàngandoo ñoo defandoo lépp. ku ma sopp nga nag bëgg naa la itam lool. waaye su ma sañoon lépp lu ñuy am ci lu baax nag wax dëgg yàlla man maa la ko njëkkaam dëgg la ndax yaa ngi may dégg maanaam mhm. euh, lépp loo xam ne dañ koy am ci lu baax man dama koy dama la koy bëgg njëkk am boo ma ko njëkkee am rek loolu day itam day jur fiiraange dana jur fiiraange itam ci benn côté mhm. mooy nga am sa soxna di ko fiire boobu la ñu bari ëpp lu ñu xam mhm. fiire sa soxna tekkiwul ni maanaam dangaa bëgg sa soxna lool déedéet yenn saa dañ koy def naan ku bëgg fiir na xam ku bëgg fiir waaye mhm. waaye fiir itam day yàq mbëggeel ci lu baree bari ci naka la ko yàqee Ablaye Naar dëgg la fiir day yàq mbëggeel mooy bari na tey sëy yoo xam ne bu ñu yëngoo mhm. fiir ko fiir ko yëngal de fiir ko yëngal te fiir waru koo yëngal li tax waru koo yëngal mooy du ca dara du ca dara ah waaye Ablaye Naar na ku xam nga fiir uh-huh. fiir lenn la mhm. njëkk mooy ñàkk confiance la kóolute mooy un mooy un amoo ko ci sa ki ngay nekkal xam nga fiir mooy lan fiir mooy lan fiir ci gàttal boo koy firi mhm. mooy nga gis nit di amee doxalin woo xam ni mhm. wóoluwoo ko rek mhm. maanaam wóoluwoo ko mooy yaa nga gis muy dem ak dikk nga njott ni kii am na fu muy dugg fu mu la waxul Ablaye naan point yi naa bëri nag ndax boo nee dugg ko génn rek day mel ni waaw sunu sunu góor yi yenn saa yi jàdd ba sunu jigéen ji jàdd donc euh, téléspectateur mi ngi gën a neex mi ngi gën a euh, euh, maanaam de dem mhm. donc fiiraange nag ci tënk mhm. Ablaye naar tënkal nañu fiiraange donc tey loolu lañuy waxtaan ni mhm. yéen ñi nga xamante yéen suñuy téléspectateur duñu bàyyi xel kon donc ci kanam tuuti Pa Oumar dinañu dinañu dinañu servir numéro bi bu ko defee ngeen daal di dugg ci kanam tuuti daal di doon ci 88 la 628 02 02 ak ñun ñuy toog ñoo koy pelloo di ko partagé ci doon sama góor na mhm. noonu sama góor egsi na la zone waxtaan da ngeen maa sikk <laughs> dafa yéeme peex da ngeen maa sikk def seen zone waxtaan waaw ah, kay baax na ba tey man ma nekk jigéen nag waaw jant ak ah, waaye tubaarkaal la waaye seeg sa baaxal yaram da koy dégg nag maa la bëgg nag dafa baax sama waa ji mais bàyyi daal nuy naa la ah, c'est ça Aram maa ngi lay fay di wax maa ngi jégalu bu baax ci tardement bi mhm. waaye xam nga yoon bi moo xaw a xat. dëgg la. te tubaarkàlla macha allah. Mhm. Ah, xëyoo plateau. Mhm. ak sama xarit bi. Mhm. Ablaye Naar Ablaye Naar ah. Ablaye Naar ak Mbaye Peex. dégg nga lii dama dalee waaye lii mooy xew na fi ah, ko gis Mbaye attanu ah, ci xel <laughs> waaye lii neex na tubaarkàlla waaye sama diggante gi. Mbaye sama di fii maanaam sama diggante gi maanaam maanaam gis nga mbay mi. dafa lu bari dafa ne ci moom. Mhm. peex lu bari dafa nekk ci yow mooy uh-huh. wax ji ak dégg ji dëgg loolu gis nga ñu mel nii comme si sëñ comme si saar bi nga ko waxee léegi dafa am ñoo xam dañoo war di yaatu ci télé yi ak rajo yi mhm. parce que maanaam bu weesoo at mën naa néew waaye la ñuy xam moo bari fa ñuy dugg mooy sori dañuy waxtaan ak mag ñu leen di déglu lu bëree bëri mhm. peex mi ci la bokk damay fal di déglu ay kàddoom nag mhm. damay fal di déglu ay waxtaanam lu bëree bëri macha allah wax dëgg yàlla tubaarikàlla allah mu mel ni neex na ba noppi euh, nuyoo bi lan la looy servir téléspectateurs yi waaw xanaa di wax maa ngi nuyu ñëpp mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi topp jotaay bi nga xam ne si sa aram suñu jigéen bu baax bi nga xam ne dafa jongo ma ba énervé. Mhm. dégg moo la mbir yu mbay ba dem démb rek laa ko wax. Mhm. di wax dañu nekk ci at mu bees. dèjà. yàlla na yàlla tàppe xol yi. yàlla na yàlla jàppale. Mhm. kenn ku nekk la ngay yëngutu ca am ca yaakaar yor sa bopp yor sa njaboot wala nga dimbal ci sa yaay maa ngi ñaan ci barke Mouhamadou Rasulullahi yàlla na ko yàlla defal amiin maa ngi ñaan 2003 bi ñu génn tamit mhm. bi ñu dugg yàlla na ko dàq amiin bu namee ñaaw mhm. yàlla mel ni moom <laughs> mhm. loolu daal laay nuyu <laughs> sanu yoo riis la tubaarikàlla la mi naa mu mel dag noo fekk ci waxtaan wi ndax tubaarikàlla ku ne xam ne ni euh, problème circulation bi moo sonal ñëpp tubaarikàlla nga fekk nu ci waxtaan tey thème bi yow yow fi mu toll dara ump la ci ndax fii raa nga nañuy waxtaanee mm-hmm. alaaji Lamine naa tubaarkàlla ñëw ci daal di faram-fàcce tënk li nga xamante ni moom moo di fiiraange mm-hmm. ñu bëggoon nag tey jii nag balaa ñoo ubbi euh, suñu serveur bi mm-hmm. balaa ñoo may téléspectateur dugg euh, donc ñu daal di ñëw nag euh, nga ñëw indi sa introduction par rapport ak thème bi tey muy fiiraange xam nga fiiraange lu koy luy ndeyam ñaaw njort gis nga fiiraange am waaye dëgg dëgg firaange mooy ñaaw njort ñoom ñaaw maanaam bañ a wóolu ki nga nekk mooy ñaaw rek mm-hmm. soo génnee sax dem kolobaan mm-hmm. bàyyi sa jabar sa kër sa xel a ngay xalaat mm-hmm. nit dangay ànd ak xel mu dal ki nga nekkal yàlla moo leen boole wax ngeen nekk dëgg la yàlla mënoon na laa boole keneen su amee jikko boo xam neexul ci moom wala wóolu woo ko woo ko ngeen toog waxtaan waaye firaange tëj ñu réew xale jigéen ñi ñu ngi bëgg rey seen jëkkër yi góor ñi nga xam gëmuñu yàlla ñu ngi bëgg rey seen jabar yi nañu ànd ak dal mm-hmm. jigéen boo fekkee dañ ko muur ci jàkka mm-hmm. may la ko mm-hmm. ci farata yàlla sunna Muhammad loolu neexul ci moom da nga koy réglé ci biirum néeg mayabul ma waaye ba sa jabar sañse bu génnee nga mer bu demee marché ngay bëgg a dee bu ne la maa ngi dem sama kër yaay ngay bëgg a dee àndoo xel mu dal loolu sëy sëy confiance la say confiance moo ko lal waaw euh, waaye euh, yaakaar naa koo dem jëlee kër ndayam ak baayam indi ko sa biir kër mm. est-ce que fii nga na mën a dox ci seen diggante est-ce bu yàggee du sax waaw xam nga mooy li ma wax rek ñaaw njort waaw gis nga fiiraange mm-hmm. boo dëgg boo ko tënkee dëgg dëgg ci ñaaw njort lay ñëw dëgg la gis nga nit buñ la ko mayee muy sab nawle mm-hmm. yàlla boole leen yow ak moom àndal ak moom ci xel mu dal mm-hmm. muy ñaari côté yëpp ci góor gi ci jigéen ñi xas na jigéen ñi tamit dañ doy waar fi ne am na ñoo xam bu vingt jotee hmm. doot ñu may seen jëkkër jàmm foo ne taala sa téléphone ma wala appel vidéo loolu fa ma ah la dëgg la dëgg la yow yow Lamine Lamine Naar euh, tubaarkàlla moom dafa ñëw hmm. Ablaye Naar hmm. moom dafa ñëw ci côté jigéen ñi est doo ñëw ci côté góor yi tubaarkàlla ñu xool ñaari version bi ko defee ma ñëw ci milieu man waaw d'accord naa uh-huh. euh, li mu wax léegi mooy li ma la euh, tàmbaleel ci ndorteelu wax maanaam tënkalal mooy fiiraange ba ñu gindee ko ci dëgg la comme ni mu ko waxee fiiraange ci li muy doore mooy ñaaw njortu waaye nag ñaaw njortu mooy lan fiiraa ngi njëkk dafa am luy ndaye maam lu ko ëmb mhm. lu ne ci suuf ba ci njëkk mooy li ngay gëm du li ngay gis mhm. maanaam boo fiiree mhm. li ngay gëm nekkut li ngay gis li ngay dund ak sa soxna tey man fekkente ne góor laa damaa fiire sama soxna sama soxna fi muy dem ma koy xam li muy dund ma di ko xam li nga xam ne war na ma ko ci mbëggeel ak mat gu mat sëkk nekkul ni loolu laay gëm xam na laay gëm li may njort li ngay njort bu ma fiiree li may njortu laay gëm naka <laughs> noonu itam bi ñu may wax ci sama soxna li may dégg ci mbedd mi laay gëm mhm. fiire moo tax ma ne la fiiraange baaxul baaxul day yàq société sax day yàq mooy uh-huh. dëgg la nag dina gën ci wet mhm. ndax mandarga la buy firnde ni bëgg naa dëgg ndax bare na ñoo xam ne boo leen bëggee mhm. te fiire woo leen ñoom ñu jàpp ni bëggoo leen bëggoo leen waaw tubaarkàlla loolu tubaarkàlla peer nga am na am na ñoo xam ni tey nu la boo leen woowee nii mhm. wala bokk ngay nekk ak ñoom mhm. seen soxna nekk ak ñoom te tey boo leen gisee ñuy génn te doo leen laaj foo jëm mhm. maanaam nga nga nga mbaay yàlla leen daal maanaam du leen liggéey dara dañ jàpp ni kii li jëntiwu moo bëggu la bëggu la da nga dem ba nga xamante ni da nga naan bëggeel amatu fa jeex na bëggeel amatu fa ngay wax kon daal da nga xam leen fii dafa am ñaar dana defar waaye dina yàq dina yàq itam loom daal xam nga lu ci ëpp rek baaxul dëgg la lu ëpp baaxul lu jabar bu la ko mayee foog nga topp ko foog nga contrôler ko mais mais xam nga fiiraange la muy indi bari na Euh, tey jii alaaji laminaar alaaji peex euh, maanaam euh, ñi nga xamante ni aussi dañuy dem topp seen jëkkër ci beneen facette di ko topp di ko yóndu ba ci téléphone am xam nga tey jii téléphone yàq na lu ne tey loolu lépp fiiraan di koy indi di nga jékki-jékki am confiance sa jëkkër bu toogee ngay yéndu téléphone am bu loo soree nga xool leneen la mu nekkee yàlla bu mu ñëw ngay xempi ay yéreem yàlla bu mu ñëw ngay xool tubaarkàlla ay tubayam ay njitlu kaayam sax da nga koy xool yàlla bu mu ñëw nga xeñtu la waxal waxal day mbay tubaarkàlla maa sha yàlla bu mu ñëw nga xeñtu li nga xamante ni tubaarkàlla mooy mooy ñu paal xet gi di xeeñ tubaarkàlla ah, loolu est-ce que euh, ñun ñi jigéen ñi buñ ci dallu bu baax est-ce que lu yàq suñu sëy waaw loolu mooy ñàkk confiance rek hmm. te confiance fu mu amul qualité fu mu amul dara du fa baax est-ce que nan tamit nag benn côté maandu xam nga mooy lan yow sëy mooy lan maanaam yow ki nga bëgg da nga koo jël takk mooy mhm. jigéen ngi yow dañ góor moo ñëw ñaan si la mhm. xam nga dafa am loo dafa mat sëkk mhm. maanaam nit boo ko wóolu du roosee ak moom ak kóolite nag dana door dem ba ci digg ba am ay rëq-rëq maanaam sa xel di xaw a njort parce que bari nañ ñoo xam ne ci ay góor nag buñ lay bëgg dañ lay wan ci ban lay labat bu ñëwee ba ci sëy bi duñ la ko wan déggoo parfois sax sunu maam i daan ne tubaarkàlla euh, lan la nuyoo woon ca ca ngoro ga xaw ma. la fekk ci biir xëy na te ngoro ga xëy na dañ koo fay doon tubaarkàlla euh, kon kon dafa mel da ciy da ciy da ciy xeeñtu mhm. ndax euh, nit ki balaa ngaa sëyee ak moom rek di nga ko fiire mhm, di nga ko fiire di nga sonn ci moom koy waxal maa ngi lay woo ngay jokkoo maa ngi lay woo ngay def na maa ngi lay woo nga def na xam nga xam ne dafa am bëggeel dafa am mhm. xemem am xemem am na ñoo xam duñu duñu bëgg dañuy xemem dañuy xemem jigéen buñ la gisee mën nañ ci yow lu ne waaye buñ la xësee xam pare nañ ci yow dëgg la buñ la dee buñ dee génn ak yow. Mhm. mën nañ ci yow lu ne. Mhm. waaye buñ la jëlee bu yóbbu la seen kër dañ lay sàggane. ci lu wér loolu nag dafa nekk góor ñoo xam dañoo matirul. Mhm. parce que jigéen bu fekkee da ko bëgg man fi moom lu nekk soo ko yóbbu sa kër mu toog sa penk. di war a a mën ci moom dara. lu wér te xanaa xamoo instant yi nit ñi dañoo dañu ñu bari dañu réer. mais xanaa xamoo jabar. aku fas. dañ koy tànn bul def ku jug nga ni ki sama jabar. ci lu wér bul def gën ku jug nga ni kii sama jëkkër dëgg la xanaa xamoo dañoo bàyyi la maam ñu daan def mm-hmm. bu jëkk danga nga daan bëgg jabar ñu la demal sa kër bàyyi diw mm-hmm. wala demal sa kër ne jaay diw mm-hmm. doomi diwa nga fa ndayam saykat la saykat la léegi nag ku la dàqal sinab gën laa gën laa gën laa rafetal sinab mbay nga tàbbi ci moom lii moo yàq réew mi <laughs> moo yàq réew mi tubaarkàlla waaye maa ngi doon wax ci ci njëlbeen bi tubaarkàlla euh, maanaam sànq Ablaye Naar maa ngi lay mm. wax na la euh, fiiraange sax day day day judd tamit ci diggante nday ak doom mais am na ñoo xam am na ñoo xamante ni sax mm-hmm. nday mag rakk sax fiiraange da ci dugg mm-hmm. fiiraange fépp la nekk ci diggante gi nga liggéey goro am fiiraange goro mm-hmm. ak gorom ak gis kuy séeg sa doom ba pare nga teg ko bët bu génnee bu solo rafet nga mer day am sax ci ñaari xarit mais fiiraange ndeke yaatu na de géej moo tax xaritool sax léegi bu bëri uh-huh. baaxul wóorutul am na ñoo xam ne boo xaritoo ñoom mhm. lu ñu la xamal wax ko keneen. Mhm. am na ñoo xam boo xaritoo ñoom. Mhm. dañuy yónnante ay vocal. moo tax léegi réserve dafa jot xam ki nga toog ni dafa jot xam ñi ngay waxale dafa jot. bul def ku romb nga ne ko sama xarit koy ànd ak na natt mm-hmm. ah, mu mel ne am na ko ma message nee na ma fiiraa nga tamit day judd ci ay rab ak yooyu wala rab du la fiire non xam nga fiiraa nga tamit day àdd àdd ci ay diggante ay rab ak waaw bi may léegi faram fàccee wax naa ko léegi waaw yenn saa yi xaw mi lu xaw nuru ak coxate gu sew mm-hmm. Mm-hmm. maanaam ci ñi mu nekkul nag bëriwul dëgg la dama lay wax lu leer nga xam ko nag maanaam nit ku nekk mën ngaa taxaw fëgg sa dënn naw sa bopp ni man du ma fiire nit fiiraange comme ni nga ko waxee léegi peex da nga ko faram-fàcce fu am solo mhm. mooy du mbëggeel moom ñu ñëpp fa lañ ko njort mhm. mais fiiraange dafa sew sew goo xam ne dafa xaw mel na am ak coxortu gu ndaw maanaam yenn saa boo koy def da koy defee dëgg la damaa bëgg sama bopp mhm. naa la nag yaa ngi dégg waaye sama bopp ma la gënal du bañ naa bañ naa la tey peex wax naa ko léegi su may ànd ak yow dafa am mbir yoo xam ni bëgguma yow nga njëkk ma koo am bokk na ci bëgg naa ànd ak yow maa la bëgg naa laa njëkk am kër bëgg naa laa njëkk am oto bëgg naa laa njëkk tukki am na yoo xam ne soo ma ko njëkkee def yow peex dama lay fiire dëgg la fiiraange day am ci yooyu ay xarit dañuy ànd xarit yoo xam dañuy bokk lépp démb ak lu ne séddoo nañ ko waaye tey bu ñuy ànd benn xarit bi jëkk am nangam rek da ngay gis xarit bi commencé xaw a xol bi xaw a xaw a xaw a laaj dëgg la maanaam tam moo la de mhm. moo ku baax la ku ko bëgg la mhm. mais fiiraange sewaay bi moo mel noonu moo mel noonu mhm. yàllaa ci dafa yombul ah. mais nag ëppal ci moo baaxul moom moo yàq lépp moo eh, su ma la séeroon ci jet privé yéene naa la ko waaw su ma jullee dama naan yàlla ñëpp am jàmm amin boo fexee ba am un million mën naa fexe ba am 10 000 francs ne ko sama ku yeewu sangu lu set kenn xamuloo dara. que xam ne ku yeewu sangu lu set. kenn xamuloo dara. waaye bu dee lu nit ki am yàlla dogal muy wërsëgam ci moom nga bëgg cee rey sa bopp doo noppalu. ci mu mel ni euh, Pa Omar. Euh, dafa mel ni Pa Omar amoon na benn élément boo xamante ni euh, préparé woon nañu ko pour euh, par rapport ak thème ni waxtaanee mm-hmm. ñu ñuy suivre nag actuellement di soog a yem ci ñun donc ñu leen di fàttali ne tey jii leeral penc mi dafa ñëw ànd ak yéen ak thème bu am solo thème bi nag tubaarkàlla ñu koy waxtaanee par rapport ak lu ñu dund ci réew mi lépp muy fiiraange donc ci kanam tuuti nag bu nu mënee maanaam baaxee numéro bi rek. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy bëgg a dugg tubaarkàlla dund nañ ko ñuy toog téléspectateur toog seen kër ak fu ñu mm-hmm. mënti nekk di suivre. ko tamit aussi dañ ci bëgg euh, indi seen xalaat tamit euh, bu nekkente ni ci kanam tuuti rek Pa Omar euh, élément boobu war na mën a yemm rek mu daal ñu koy baaxee bu ko defee daal koy jox su téléspectateurs ah donc mi ngi noon dafa mel ni élément bi mi ngi noonu daal dem xool ko léegi-léegi daal dellusiwaat léegi ci plateau bi ñu nekk nag di bërti bërti bërti bërti mu téye ko benn place yëf yi yàgg lool ma génn ci mbedd ma moom xamul na sama génn si mbedd ma ma génn ci mbedd ma ma naan ne sama borom kër man de maa ngi dem police ndax comme que kenn dugg àtte su ma demee police ñoom dinañ ñëw àtte ma dem police yàgg police nag ñu ne ma dafa am benn intervention bu am ci biir point E léegi da toog xaar ma toog xaar lu mat une de temps ba auto police bi ñëw mu ne ma ànd leen ñu ma ànd ak auto bi ñëw rek fekk ñëpp di fay lakk gi loolu laa ci am. li fa yàqu. kenn mënu ko xayma ndax. desetuñu dara. li fi yàqu bari na man mënu man man amatuma yëre bu ma sol amatuma dara. dara frigo bi kese lañ génne. frigo ba sànni nañ ko. man amatuma yëre sama doom bu jigéen bi sama doom moom jëkkër ji mais moom ay bagage am na ko. léegi jëkkër ji fan ne. ñu ngi koy woo ba léegi gisuñu ko parce que démb ba ma leen bàyyee police laa ñibbi si rek ñii ñëpp ñibbi police police bàyyi leen ñu génn. mbir yaa ngi ci loxo yoon ndax ñoom pare ñu pour jëlale li ni mel. su ma demee police ñoom dinañ ñëw àtte ma dem police yàgg police nag ñu ne ma dafa am benn intervention bu am ci biir point E léegi da toog xaar ma toog xaar lu mat une de temps ba auto police bi ñëw mun ne ma ànd leen ñu ma ànd ak auto police bi ñëw rek fekk ñëpp di fay lakk gi loolu laa ci am. police da nee na dina suivre enquête bi man ko nag du ma bàyyi. mu ne ma yëf yi du gaaw ndànk-ndànk mais ñun tamit dinañ topp waaw. diplôme lal. lépp luy bien matériel rek léegi doom la li mel mu ngi xewee ay booru 17 heures bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ginnaaw bi mu roñee ay bagage la def linimel wa kër gi ñu ngi sant yàlla comme que benn bakkan rootu ci wante dinañ bàyyi yoon mu def liggéeyam ndax fi mu nekk nii. tubaarkàlla yéen a ko gisandoo yéen suñu mbokk téléspectateurs yi mu nekk nag euh, image bu doy waar image bu triste image boo xamante ni euh, képp koo xamante ni rek yaa ngi dund ni ni rek euh, yaa ngi koy méttilu donc Ablaye Naar mu mel ni yaa ngi gis yéen ko gisandoo donc lan nga ci indi par rapport ak li nga gis nii. d'accord gis mhm. dañu koy def mooy goro bi. Mhm. comme ni ko pexe la waxee léegi day xaw a mel ni lu xaw a wuutee tuuti. ak dëgg-dëgg fiiraange gi ñuy wax. Mhm. amaana euh, dana yóbbu nit fii nag. Mhm. fiiraange. Mhm. dina yóbbu tey yaa ngi koy dégg am na benn vidéo bu fi xewoon ci yàggul dara. koo xam ni. ay jëkkëram da ko takkal wujju mu toj mbooleem bu nekkoon ci biir kër gi dëgg la nga xam ne yoo xam ni jënd ko borom këram moo ko jënd mu dikk fekk ko fi borom këram doon liggéey te yàlla tere ko mu am loolu tey amaana nag takk nañ la ñëw nga sëy si nga bëgg nañ la yow itam bëgg nga bëgg xam nga ni bëgg nañ la naw nga sa bopp waaye tamit am na fooy dem ba toll fa ba nga jàpp ni nag duñ la wutal wujju gis nga foofu nag problème bu rëy dafa am loolu dafa problème ba am foofu nag mm-hmm. Mm-hmm. góor ñi ñooy def problème bi ñooy def seen problème de xam nga góor ñi ñooy problème mm-hmm. man maa du takk soxna man du ma ko def Ablaye Naar di la gëmal ni ma dama la takkal wujju boo ko dafa yàqu non xalaatuma ko xamul tax maanaam nag du ma nga yilif ma nag moom ah, boo bëggee dégg dëgg ah ñi la bëgg naa la mhm. moom danaa ko woon ba ma sëkk mhm. lépp lu borom kër di warloog soxnaam mhm. dinaa ko def dëgg la ngir nga respecté ma nag man maa koy def xam nga lan moo tax nga respecté ma man maay njëkk respecté sama bopp ci naka lépp loo xam ni kenn waru cee gis borom kër ma doo ma ci gis doo ma dox ci lu ñàkk fayda doo xool sama téléphone mukk ba gis ci may wax ak benn jigéen boo xam ni du sama soxna képp koo xam ne dama koy labab ba sama xel nekk ci tag ko yàlla xam ne ne yow laa koy njëkk a du ma la gëmal ni yow kott la doo am wujj fii yaa fi nekk tey nag moo bari ci kër yi lool. Ah, am na jigéen ñoo xam ne ko ëmb rek. am am na góor ñoo xam dañ koy wax dañ koy ndamoo ci kenn seen kanamu soxna. Mhm. kii mooy lingeer du am wujj mukk dañuy dem ba jëmmi jamono nag <laughs> seen xel na ci. dëgg la ñu am jafe-jafe. Uh-huh. yónni seen xarit. Uh-huh. yónni seen nangam. Uh-huh. nga dem waxal ma ko soxna si ne ko dama bëgg am mais pour lan loolu yow yaa yilif. dëgg la yàlla yow jullit nga. Mhm. lañ la sant takkal ba ñeent. Mhm. yow lu la l'islam sant nag war ngaa mm. nangu benn doomu aadama boo xam ne yaa ko yërif mu dara ko xañ ah mais loo xam ne nag euh, tubaarkàlla piyeex am na ba noppi mm. est-ce que jigéen bi fiir war na laa yóbbu fenn ba ngay taal wala ngay def yenn yu ñaaw yi wala ngay soode ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi sonal leen euh, ndax fiir gi nga fiir est-ce que loolu euh, jar na ko si saaram mm-hmm. dégg nga léegi li la Ablaye naa tam wax mm-hmm. dëgg la gis nga fiiraange nga di ko topp yu sew sewaat yooyu indi lii lenn nag boo demee ba ci biir tamit. Mhm. boo ko jàngatee feebaru xel mën na ci <laughs> ndax man lii jàpp ba nit ku normal mën na koo def. déedéet loolu dëgg xel xel mujj naa métti di. parce que day indi day indi feebaru xel. Mhm. gis nga fi ne boo demee Fann. Mhm. bari na jigéen ñun fa yóbbu. fiiraange moo yàq seen àdduna ci lu wér boo doon dox tey jii wala nga dem ci kër yu bari am na ñoo xam dañuy añ. di reer di ndékki waaye boo leen xoolee. nuru wunu nit ndax firaange. waaw comme am na jigéen ñu wow ndax fiir te adduna yàqu na. goo xam ne dépense bi manqué wul. ndeysaan ceeb bi manqué wul. rooti woo ci teen jukki woo di taal ci clim di faral ci clim di ndékki normal. te mënoo am yaram. te mënoo am yaram wow koŋ. wow koŋ sa yax di nuyoo. sa yax yi ni pang fa ngaaral <laughs> boo génnee kenn xam loo nuróol. ndax comme bayu <laughs> firange yàq na yàq <laughs> mais nañu def attention. mais sama benn xarit na mi ngi yónnee message. nee na nee na ma peex da ngaa baax mais xarit am na. xarit am na waaw parfaitement xam nga règle boo gis am na exception. dëgg la mmh. boo déggee ñuy wax ñëpp ñoo yem. waaye nit ñi nga xamante ni dañuy dund loolu tamit mhm. faaw ñu laal côté boobu waaye ñi fiiru noppal na ñu fiirul moom mhm. di jëntiwuñ kenn ñoom bariwulan waaye tubaarkàlla ba tey kon euh, ñi nga xamante ni yéen ñu suivre euh, mhm. donc mën ngeen a participer ci 88 la 628 02 02 88 628 02 02 bu ko defee ngeen dugg ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di euh, fiiraange donc thème bi nag ñu nekk seen biir kër ñu ngi koy dund waaye ñun ñi sax aussi ñu ngi koy dund ah, am na ñoo xam ne dem am na ñoo xamante ne day man damaa jaaxle code boo def sa téléphone ñaari fan net loolu doy na waar nag surtout code yi waaw xaw ma buntu day yow la ñuy xool code bi xaw ma dañoo yoru seetu seen biir néeg def ko seen rolal ja yëgoo ko boo sensé code ñëw leeral TV boo ñibbee ñu defaraat code bi ba pare xale ji nañ bàyyi visite téléphone mm-hmm. ah buñ fii duñ visite suñuy téléphone gis mm-hmm. la mm-hmm. am na loo ciy wax loo xamante nii du nakk jubadi Mm-hmm. mais secret la. dëgg la te ku xool gis. ku yeddu di nga gis. nañu bàyyi téléphone seen jëkkër yi nii làmb. ah jëkkër yi doo yi làmb seen téléphone di jabar yéen tamit. non xanaa xamoo jël sa téléphone jabar sax di ko seet bokku ci matière. jërëjëf bokku ci moom. man d'accord ma loolu. ñàkk a bopp la sax. Mm-hmm. ñàkk a sa bopp la. dëgg la jigéen soo ko dëkkoo dëkkal ko. dëgg la <laughs> mu bëgg la trop ngir nekk. soo demee bay jël téléphone am di ko si xoolaatal sa bopp am na loo war a def ci defoo. am na loo war a def te defoo am na loo war ci moom te defoo dëgg la. gis nga saa papa da daan wax man du ma dem fenn ñu may joxeel dépasse ndax ko yàpp yokk yokk sa dépasse yokk say wax. gis nga boo dee kay góor yàlla. Mhm. pire yor sa jabar teral ko sagal ko te ko ci ay normes ay conditions yu leer soo demee bay visite bopp téléphone xoolal sa bopp yow yaa war a visite sa bopp bokku ci matière. ah firaa nga comme sama téléphone jabar bu doon solo du ma ko jël. parce que fiiroo. toppatoo ma ko parce que man li ma ko woon yaakaar naa doy na ko. te jigéen am loolu leen dund day yaakaar ne yow rek góoru dëgg la boo gëmee sa bopp yow lan lan moo xew. lan moo xew qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se ce qui <laughs> nag waaye nag euh, si taram. <laughs> Uh-huh. dana ci baax nag. dëgg la saa yi. waaw xam nga lu ci mu ciy baax. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ni nag. très da ciy baax visite googu da ciy am solo. maanaam mm-hmm. lëj luñ tutu. Mm-hmm. foog nga luñ tutu nag yenn saay yi ci euh, jigéen. wala ngay góor xam nga dafa am ñoo xam ni dañoo lëndëm. dëgg la dañoo foofu da nekk ak ñoom. ñu lay gëmal loo xam ni wax dëgg yàlla gëmaluñu ci dara te dafa mm-hmm. metti nag ci xol mm-hmm. dafa am ñu koy dund jamono ji mu metti lool dëgg la dafa am ñoo xam ni tey mën nañoo nekk ci kër gi mm-hmm. yàlla xam na ne di la wax yoo xam ne da ngay xam ne lii muy wax dara du ca dëgg bari na am na jigéen ñoo xam ne jamono ji yaa ngi koy wax léegi dañuy nekk ci seen i kilim ak lépp mais ñuy ñuy tuuti déedéet amaana sax fiiraange mën na koo bañ a waral ci wet xam lan moo ko waral mooy seen i borom kër mi ngi jëf-jëf joo xam ne seen xool di naqari di naqari dëgg la mënuñu ci dara bilaay mënuñu ci dara lan moo tax mënuñu ci dara mooy ñi ngi xel njaboot gi mhm. dafa am jigéen ñoo xam ne wala góor ñoo xam ne seenuk mbaax mhm. daf leen a sonal seen xol gore noonu du caaxaan mhm. gore te nag dafa am ñoo xam dañ koy séqal ñoo xam ne duñ xam loola lay mhm. gor yaa ngi dégg mhm. gis nga moo tax may ne luñ gi yenn saa yi da ci xaw a baax dëgg la xam mhm. xam da ngay dem ba toll foo xam da nga leen di jàpp loxo ci poos loxo ci poos jigéen nga jàpp ko loxo ci poos a du sañ bañ xam nga nag ci wet fi mu dul baaxee mooy li nga wax léegi wolof njaay dana ku yërndu gis olof Ndiaye dana ko yëndu daal di gis euh, tubaarikàlla ba tey ci 88 la 628 02 02 yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy suivre actuellement penc mi moom mooy woy euh, ba tey fi mu toll nii nag ñu jëm ak yéen ba 14h30 ci kàttan suñu borom euh, wax ni nag tey fiiraange la waaye thème bi aussi du fi yem ndax sunu sunu sunu sunu sunu dooree lundi ba jeudi lay daal di doon kon donc thème bi fii ba suba sax mhm. tubaarkàlla ñu ngi koy waxtaanee waaye képp koo xamante ne rek yaa ngi ci am sa xalaat mhm. mën nga dugg pello ko ñun maanaam peex Eh, sànq dana wax lu am solo muy fiiraange diggante nday ak doom fiiraange fiiraange googu nan na mën a juddoo ci diggante nday ak doom. xam nga fiiraange di mën a juddoo ci nday ak doom. Mhm. am na ñoo xam dañoo doxul seen ndaw bañ ko dox seen ndaw. danoo doxul. dañoo doxul seen ndaw. Uh-huh. bi bi ñuy bi ñuy nekk dëgg dëgg xale. Mhm. war a nekk ci rythme bi. Mhm. dafa fekk yu bari xewul. yu bari xew ay TikTok. <laughs> ay ay Snap. jërëjëf Mbaye ay WhatsApp. yooyu ay ay ay gerefaas. ay gerefaas <laughs> frontal. frontal ay raw xeer. <laughs> yooyu léegi nag. Uh-huh. nga dem ba gis réew mi dox. Mm-hmm. sa doom nekk ci loolu. Mm-hmm. yàlla boo ko jur jur moromam jur moromam mm-hmm. ñii mën ñu ko am moom mën ko am. soo mu jur rek firaa dugg. Mm. gis nga doom. nawle la yaay du morom. dëgg la. xeer la ak. doj ak nen. Mhm. soo dalee ci kawam gaañu bu dalee sa kaw gaañu. Mhm. mais nag am na dëgg dëgg yoo xam ne nag da xam ne lii waajur la. dëgg la mënoo koo tëb mënoo koo jaar ci suuf. Mhm. waaye firaange dugg na. firaange dugg na. waaw Ablaye naati naka. firaange dugg na ci waajur ak euh, doom. comme ni ma ko waxee léegi. faram fàcce nañ ko leeral na mu leer nañ. mooy li ma la wax ba léegi rek. Mhm. fii ràngee dafa nekk lu sew ci mën a mucc bariwul. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu koy def njortu ga ne am mooy dañoo bëgg seen bopp. Mhm. dëgg la kase lañ koy jublu. bëgg seen bopp comme ni nga ko waxee léegi maanaam tey doom wala boog doom mën nay fiiraange ay waajuram ak yooyu. amaana sax loolu mën naa niiw lu baree bari parce que. li ci ëpp mooy sa waajur boo ko bëggee. boo ko bëggee. yow loo ko amal wala lu mu am yow. xeeb nga ko. dëgg waaye nag fan la jafe-jafe mooy keneen di ko defal. foofu la fiiraange ma dugg maanaam sa waajur mhm. tey lu mu am yow waroo ko mën a fiire wax dëgg yàlla parce que yaa ko war a def mhm. yaa ko war a dolli waajur d'abord xol gi mooy ubbeeku jëm mooy sa xol mooy ubbeeku ci moom ba lu mu am da nga koy yéene kooku dana jafe nga koy fiire ci wet mhm. fii rek ci wet nag mooy xanaa yan saay comme bëriwut nag ay góor ak nangam ak nangam comme par exemple Euh, paa bi néewtu fii nangam ak yooyu yooyu yenn saa yi ci côté boobu lay ame waaye kantaa ci am amam ak yeneen ñu mhm. loolu moom barewul bareetul fi ñuy baree nag mooy wax na la ko léegi mhm. tey ñaar mën nañoo bokk ndey ak bàyyi mhm. kenn ki nag daq defal waajur ji kenn ki mën naa daq def jëfal waajur ji maanaam tey lu waajur ji soxal mu yëkkati jox Mhm. kooku nag bu dee mag la war rakk mën naa fiire ki ci des mën na fiire daal di daal di dugal digganteem naa ne ma sama yaay daf ma gënale waaw daf ma gënale am na am na am na am na sax ba tey maire yoo xamante ni mhm. dama def benn affaire ki leen dàq defal mhm. am na kenn ku nu gën a bëgg dëgg la dëgg la lu leen kooko defal sax ñu jël ko joxaat ko seen rakk wala seen mag loolu mooy yaay loolu loolu ci euh, euh, qualité waajur bu baax ci la bokk te boo yore say doom ñëpp bokk ñu wërsëg cey bay dañ ne bokk ndey ak baay mi mel ni bokk fanaan ci mu nekk wërsëg tamit seexluwul xoolul juddu. xoolul diwoo ma jur mën ngaa jur doom doo yor dara yow mi ko jur doo yor dara doom ji jur doom yor lu dul jeex. moo ko jël li ko doomam jooju defal di ko defaat ci ji mu gën a bëgg kii amul xel sax tey defal waajuram daan sama yaay dootuma ko jëndalee nangam. ndax su ko jëndalee jasneer sax sama gëstoo gis ko mu jox ko sama rakk ji wala mu jox ko sama mag amul xam-xam waajur loo ko defar rek xeeb ko ñu ne ñu ne fiiraange ba tey day dugg ci diggante doomu bàyyi du jeex fiiraange day dugg ci diggante doomu baay yi mhm. ñoo bokk papa benn gaño gi la tubaarkàlla mais bokk nu yaay suñu gisee doomu baay bi moo gën a ok xanaa xamoo fiiraange day dugg carrément dafa xanaa xamoo am na am na am na doomu baay yoo xaman sax mhm. seen wujje moo raw wujje ñaari bokk jëkkër ci lu wér déet waay barke Sëriñ Tuuba na doom am na ñoo bu la gisee nga sol dàllu bees ñu mer ñu mer mhm. fiir laa wax fiir na parce que yàlla mooy atte dëgg la gis nga nit ñi dañuy jaawale wërsëg ak liggéeyu ndey li yàlla bind sa jëb nga war koo am mhm. bala ngaa faatu di ko am di nga ko am te xanaa xam dama lay wax benn affaire si sa aram dëgg la koo bëgg mu bon te heure boo gisee muy baax xanaa xam problème passé wu loolu da ngay stress di jeex rek waaw en général sama yaay jiitu ci kër gi wala sama yaay def nangam lan moo tax kii def nangam mhm. est-ce que liggéey ñu mhm. est-ce que nangam est-ce que nangam extra extra extra extra loolu amul njariñ amul njariñ bu ñu gëmee yàlla dañuy boole suñu bopp ànd lu nit am ñu yéene ko ko ah dafa mel ne mag ñi njëkk ñi moom fiir gu njëkk ga amatul léegi par rapport ak tay ji fiir fiir gu njëkk ga amatul moom euh, mënta am itam nag dëgg la maanaam jamono nag booy soppeeku mhm. maanaam nekkul ni nit ñi ñoo soppeeku mais jamono moo soppeeku jamono bu soppeekoo mhm. nit ñi dañuy soppeeku ànd ak moom effectivement ndax suñu maam ya mhm. dañ daan mucc ci fiiraange ci wet li tax ñu waa mucc mooy dëkk bi ba paa bi di mu fenn ci dëkk àll la nekk amaana ñoom li ëpp ci leen daan tal mooy tool yi sàmm gi tey bu génnee génn bu sore jabalan dem marché ba bu nemee jaba talaata ba talaata mu wala altine ba altine ndugg na ñu dugg andi si ku la yar maanaam xam nga Ablaye Naar ku la yar <laughs> wax wax gone jaba Ablaye Naar yaa ngi dégg ñoom doo leen fiire parce que doo leen gis ñu am àndandoo yu bari xarit mais nag tey dañoo toll ci jamono joo xam ne nag mhm. jawoon ak ji bokkut ji bokkut maanaam mooy tey sa jëkkër peex mii mën naa génn kër ñetti fan hmm. du ci dugg ñetti fan yàlla xam na ko te maanaam nekkul ci ay nangam mais peex am na ay nitam yuy xew hmm. peex am na ay muraadaam yu mu war a dox ci ay liggéey ak yeneen yu ko nuru hmm. mu nekk ca ñetti fan mën na koo tënk ba du dugg biir këram waaye nag lan moo tax nag soxnaam war a xelam war a dal ci peex mi parce que peex moo koy doxe moo koy doxee dëgg la xam nga problème bi lan la dëgg naa dëgg maam ñun góor mhm. góor ñu bari mhm. dañoo respecté wut suñu bopp xam nga problème mooy dëgg la bala nag bala ngaa sàkku nag kenn di la respecté mhm. dafa am lu di wax lu wax la manière dont vous voulez que les gens vous respectent vous vous naa dëgg loolu maanaam nit ku nekk ni nga bëggee nit ñi wegee la ko yow yaa leen koy wan yow ci sa bopp gis nga tey Ablaye Naar man su ma doon dox fii ci mbedd mi tey nit mën na maa bañ a joor comme tey par exemple nga dox yaa nga ne Ablaye Naar man li ma jaaxal mooy Ablaye Naar bu toogee ci mbooloo kenn du ko saaga du toog ci mbooloo ba nit ñi foo leen foo wane sa bopp ñoom faran lay teg dëgg la gis nga am na ñoo xam ne buñ génnoon fii ci mbedd mi nga dégg ñu leen di saaga fii maanaam xam nga ay xarit la mais dañ leen du jox cër lu nekk lañu def parce que ñoom ci seen bopp respecté wuñ seen mhm. seen bopp gis nga te am na col goo xam ne boo ko coloon nii mhm. des fois dañ koy wax nag ñu naan nit ki yenn saa yi ni ñu ko gisee muy solo bu ko bu ko sujet noonu mais lu dëgg mhm. déedéet xam lu tax xaw ma lu nekk sa xol nag la gis nga si tarme dama lay gis nii rek yow sa jëmm laay gis mais li nekk sa biir xol xaw ma ah. xam nga la Pape Mansour Mbaye ban ko waxee ndax nit ku am la dana nit ku amul yëre yu mu am mais dëgg la dëgg la bilaay walaay xam lu tax ci melokaan doomu aadama melokaanu bitéem ci nga koy jàppe ba tey maa ngi ci fiiraange de ba tey génnoo ci fiiraange dafa yaatu melokaanu melokaanoom ci nga koy jàppe mhm. maanaam tey peex am na col gum doon col comporto yenn comportement yi su dikkee bu taxawee fii damaa naan samay poos dëgg la defaru ma mhm. na ñoo xam ne bu ñu dugg ci oto yàlla xam ne dafa da nga gis nit jëkkati àllam teg feen denc mhm. xelam dem na ci kii sàcc la kii sàcc la amaana man naa bañ a xam luy sàcc yaayam sàccut baayam sàcc amul bokk muy sàcc waaye ni mu soloo moo tax gis nga moo tax comportement yenn saa yi day am solo ci doomu aadama comportement boobu nag mooy dem ba ci mhm. biir kër gi sa digganteeg sa soxna ak sa digganteeg sa borom kër ba guddi dafa am yoo xam ne mhm. du ay signe yu baax mhm. ay melokaan yoo xam ne da nga ci di la di la wekk ba guddi sa téléphone ni kar nga jug dugg ci génn néeg dugg ci ruq bi mais lan la doy na waar sonal ak loo mën a wax taxawal ci sa néeg soxna nga wax ak soxna ku loo nëbb sa soxna lan la nga wax téléphone wax li nga bëgg a wax ba pare tënk dem toog waaye dalatum xel man de wax dëgg yàlla ba mu ko defee sama xel du dal de ma tëdd ci néeg nga nga mhm. jël téléphone sax sonni nga génn dem bis ba mu ko defee njort judd dëgg la ah, ah, Ablaye ba tey nit ñi ñu may signal ne tubaarkàlla ñu ngi bëgg a dugg mais mënuñoo dugg ci 88 la nag 628 02 02 xëy na euh, problème bi day nekk ci numéro bi je ne sais pas donc ñu daan ñu koy xoolal ñoom Pa Omar ñu xool ko baax ci 88 la 628 02 nu ñëw nag ci beneen côté maanaam ci solin ñi comme ni ko Ablaye waxee léegi ci solin ñi am na ñoo xamante ne bëgguñu seen jabar solo buñ soloo rek fii daa ngi dugg na coow dañ ba keroon mhm. da leen jarax sax ñu rejeté seen seen programme xam nga ñooñu dañu lu ne euh, sister Aram mhm. firange yi dafa sew mhm. dafa sew kenn ku nekk nata ko sa bopp am na loo ci yore tuuti tuuti as lëf rek mais ëppal ci moo baaxul ëppal ci day yàgg dof xam nga tey sa jabar uh-huh. yoon sax may na la uh-huh. bu solee yenn sole ñu rafetul yi uh-huh. nga corriger ko dëgg la parce que man dama koy def keneen ak keneen da koy def dëgg la parce que jabar da nga ko war a orienté ci lu wér kenn ku ne ëllëg suñu borom dina laaj kii ba nga ko yoree noo ko yoree waaye am ñoo xam ne dañoo fiir ba seen jabar yaakaar ne bu solo jasneer bu yiw def gere faasam may kër def ba mu baax génn xale yu góor dañ koy xool. dañ koy xool day fiir day fiir carrément. day fiir carrément. bi dooguma la sax ana benn xale bu jigéen bu ne ma tubaarkaal su ma bëggee fiire sama sama sama jëkkër su ma bëggee bu mer dëgg damay sax sama jëkk saaj dafa baax mel kuy gént génnuma. waaw waaye nag yor jëkkër tamit. <laughs> di ah. sol loo xam sa pooj yëpp ngi feeñ. wala baa surtout baa baa am na problème nag. Ah? Hmm. sol baa boo xamante ni ko romb am xelam na ci yow. <laughs> baa du bàkkaar. mais ñoom ñu ngi teg nit ñi bàkkaar. <laughs> xanaa xam nga weeru koor dañoo war a wax nit ñi ñu xool nii solo hmm. ndax da ngay woor ba cinq heures ci ngoon ngay wàcc di ñibbi si dugg ci oto wala nga romb baa boo xamante da nga ko xool ñaari yoon te lislaam mooy la loolu. gis nga gis nga gis nga peex li li amee solo mooy loolu rek maam kii ki sol loolu nag pour yaakaar eh, am na ci góor ñi nag de déedéet déedéet eh, am na ci jigéen ñi aussi am na ñoo xam seen jëkkër bu solo ñu mer ah, non non ah. ki sol sol gu bon googu ah. sol gu xat jigéen xat na ñàpp mais en moo tax lu ci bari duñ la respecté de. dëgg la duñ la respecté. non non. Mhm. am na col yoo xam ne boo ko colee mooy li ma doon wax léegi rek. ma mooy nit am na nooy mel. comportement boo yor bëgg ñu respecté la mënul ne. Mhm. waaye nday tamit am nañ ci responsabilité. gis mhm. nga koy woo di waxtaan ak moom. doom da koy wax yow ak doom doo de kujj nga bàyyi ànd ak moom. dëgg la. gis nga am na judd yoo xam ak deret yoo xam ne. moomuñu yàlla yi nit nag su neera yoroo ci kër ndayam lay copier. dëgg la. boo dee da saaga sa waaj sa borom kër. Mhm. bis bu amee borom kër dina ko saaga. ko saaga. bu dee da ngay dem ba heure bu la neex. Mhm. dana dem ba heure bu ko neex. waaye bàyyi sa doom mu yendu àll di fanaan àll xamoo ci lu mu nekk xamaloo ko yow a kan xamoo ko sa maama def nangam sa maama def nangam sa maama def nangam sa maama def nangam. Mhm. nit ñi ñu ngi ànd ñoo am na nit ñu ànd sax da jaxasoo te waruñoo ànd. dëgg ndax doomu diw rakkal la. Mhm. da ngay fexe doon diw. <laughs> Mhm. koo laal niin ku la laal nga niin. dëgg la waxaat ko doomu diw rakkal la. doomu mhm. diw waaw rakkal la rakkal la. toog di fëgg naan diw ma jur. diw ma jur maay doomu diw. dëgg la maay nangam nangam loolu la olof di wax doomu diw rakkal la. bu sa yaay baaxee. da nga war a fexe ba baax. dëgg la bu sa baay baaxee. da nga war a fexe ba baax soo bokkee ci famille bu baax it waaye bu yegsee ci wóoru a yàqu ci yow. Hmm. nit ñi nag dañu la fàttali wax am na ñoo xamante ni waruñu damay gis ay xarit yu ànd ñoo xam ñu sax ànd seen maam yi mosu ñoo laale nag kii maamam tabax na jàkk alxuraan lay wétali ko lu mu mës a am ci lu baax la ko def. dëgg la xarit nag dafa jar a tànn ndax wax ma sa xarit ma wax sa jikko koy àndal bu yàggee nga jël jikko. nga jël jikkoom tubaarkàlla waaye jikkoy firaange dama ëpp na moom jikkoy firaange moom ëpp na tubaarkàlla fii bu ëpp moom comme ni ngeen ko waxee rek ab dof la fiir gu ëpp dof la mhm. fiir comme li ëpp lu ëpp gaañ nag ak lu mu mën doon lu ëpp gaañ xam nga fiir doo ko fi ku mu mën doon du ko fi mënul ñàkk dafa bo dafa ànd ak nit mhm. fiir dafa ànd ak nit mais nag ñi koy jëfandikoo dañoo xamul Mm-hmm. kañ lañ koy jëfandikoo mm-hmm. nan lañ koy jëfandikoo mm-hmm. ak ñaata li ma a jëfee natt ko a jëfandikoo kañ laa koy jëfandikoo maanaam su ma ci war a jëfandikoo nangam laa ci a jëfandikoo maanaam la ak naka la problème boobu la ñu am ñoom ci bu ñu fiiraange fiiraange kañ la ak naka la naka la ci naka kañ la maanaam <laughs> uh-huh. kañ laa war a fiir man kañ la war a fiir ban ba wane ko dafa am solo fiir nag dana ca baax dëgg nga fiire sa bopp yow fiire sa bopp mooy sa jëkkër sa jëkka tey. Mhm. war naa am nu mu doxee. dëgg la wala nu mu waxee. Mhm. tey nga woo ko ñëw. mais si saaram am na ñuy laaj antenne numéro bi de. ñu ñaa ngi koy laaj tubaab kàlla dafa mel ni euh, maanaam Euh, dafa problème mu euh, euh, maanaam technique la su ma juumul ndax nit ñaa ngi koy laaj ci 88 la nag 628 02 02 nit ñi ngi koy laajte mais peut-être maanaam booba léegi serveur dafa mel dafa amoon problème su ma mais xam naa ñi ngi nekk di ko defar ndax mm. ñëpp a bëgg a dugg actuellement mm. Mm. nit ñaa ngi ni messager fu ne les Sénégalais de la diaspora aussi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax suñu yaay aussi ñu ngi ñuy suivre ku ci mel ni Mbayang Mbayang Mbayang Mbaye donc mu ngi ñuy suivre Binta Touré Kiné Penda suñu ñoom ñëpp nañ kër gu mag aussi di ñu suivre ñu ngi leen ñu ngi leen di béggee baax ndax ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi am seen xalaat bu baax a baax ci fiir mm-hmm. ndax fiir bu njëkk ba ak bu tey mm-hmm. nee nañ tubaarkàlla bokkul mm-hmm. euh, euh, fi mu toll nii nag euh, xale yi jigéen dafa am na da nga dafa am feebar rab dëgg la man gis naa koo xamante nii uh-huh. day fiire jëkkër ba bu yoree sax da koy tuur isa du rab nag <laughs> ko këpp nit ah boo ñëwee kër gi doo may nit ñi jàmm duma xale yi mere mag duma gone ndax firaange am na am na sama benn xarit. Ah, <laughs> ah, moom ndeysaan moom mi ngi toog di ñu seetaan. Eh. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax yaayu Adja Dem petit naar mhm. ndeysaan mi ngi toog nee na bu baax si Saarab ak Ablaye Naar mhm. ndeysaan mi ngi koy nuyu au bu baax ndeysaan am na solo yaay yëpp waroon ñoo mel ni yow bilaay eh, ndeysaan yaay ju baax eh, tubaarkaal ñu koy namoo ñu ngi koy bégee bilaay ñu ngi koy ziar baax baax ku ko matal xam nga dafa am sama benn xarit bu doon nettali leen yaakaar naa benn vidéo la boo xam ne yaatu woon na tas na sax ci mbaaru jokko yi maanaam. lam doon wax mooy dafa am benn benn jigéen ñi ne dañoo bokk kër ñee sama tante la. dëgg la maanaam benn waaye boo xam da ko doon bu a xorom. ñee bokk kër waaye ñee sama tante wax ku baax la. tey boo ko nuyoo ni ko tante wàllum jëkkër wujj. maanaam la wujj day bokk bokk wërsëg la bokk wërsëg la wujj day amul solo maanaam ku ñëw <laughs> dañ ko yaatal xajal ko dëgg la dëkkook moom mhm. waaye nee na yàlla def bis nag ñu takkal ko wujj dégg nga nee na sama tànt daal nee na boobu la soppeeku moom complètement nee na daal boo ko gisee uh-huh. nee na booba dina bu daan togg añ bi nee na añ bi daal neex a xorom si dafay xat naka nee uh-huh. boo fiiree firgo bu nee na maam doo yam luy tolloo da fiir te nee li gën a grave mooy xale yi nag ñu ne xale bu daw ba ñu dafa bëggoon xale waaye xale bu daw ba kott ko mu di tépp toppal fële sa xol day gaaw ba xol bi maanaam xol bi day dem ba tàmbalee. da ngay da ngay waaw day da ngay. day indi sax guwaatar moo tax day indi guwaatar mais yow xanaa xamoo jéggi bari guwaatar nan. guwaatar nan. guwaatar nan daaw. jéeg doo ci gis rek ba tamit nga xullee baan woo. man am na sama benn xale boo xam dafa takk ñaareel. waaw ñu wax ko jabar ji. ne ko dañ maa may ñaareel jabar ji crise ñu yéen yóbbu hôpital. di faj am na fa une semaine. bu waa ji génnee jabar ji ne ci hôpital bi ne ci jàmm. ndeysaan su waa ji dee waa ji dugg si kii yaat mhm. médecin bi moo dem ba xam ne lii mhm. ndaw si dara jot ko. dëgg la mu woo jëkkër ji ni ko kii dara jotu ko fiiraange rek moo ko jàpp. Mhm. xool boobu coona. fiiraange dégg naa dégg waa loolu ci am de foo dem maa mën yéeg hôpital kenn du gis dara. Mhm. mais ndekete yow daal boo toogee calmement fiiroo defoo dara ngay am jàmm te en général li ngeen wax sànq dafa am solo nag de am na ñoo xamante ni koo ci gis mu belli am yaram ah maanaam. Euh, cekkate comme ni ñu koy waxee wala góor boo xamante ni dafa féexalaat àddinaam comme Ablaye Naar ak euh, Baye Zal la peex fi mu toll nii fiir yomb leen waaye am na ñoo xamante ni dañoo jël fiir def ko loo xamante ni def ko nag euh, liggéey suñuy naloo ñu ngi ñu ngi xalaat mm. bu ñu yeewu ñu ngi xalaat liggéey bi ñu def nañ tey boole fiiraange fiiraange yi ëpp boobu est-ce que jékki-jékkiwul sax dina ay feebar yoo xamante ni feebaru malaise yu ndaw yooyu jékki-jékki di daanoo yooyu xanaa xanaa da nga da nga fiir sax ba ba tëddee sa soxna doo ko mënal dara di nga xanaa xamoo fiiraange ci góor góob mm. moo gën a gaaw indi tële day indi télé. maa la ko wax parce que nga stressé. ci mhm. yëf yi bay. déedéet. dégg nga xanaa dara du dox. <laughs> lépp naa selaw père père dafa yéeme. <laughs> ay ci ba tey ci 88 la 628 0202 Thiala mu ngi nii euh, euh, fàttali ne leen téléphone bi yemm na kon donc madame saw ñu ngi lay béggee mën nga dugg. Mhm. nga bokk ndeyam Rokhaya ak Seynabou donc ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax madame Fall. ayca suñu yaay gi nag awataal Tall tubaarkalla moo yor kafe gi kafe gi yaaññi gi. Mhm. Awa suñu yaay mi ngi nekk depuis. Euh, géejawaay euh, yor café gu mucc ayib tubarkàlla euh, bëgg noonu nag accompagne ci sunu émission bi nga xamante ni mooy leeral penc mi mhm. kon ñi ngi xaar partenaire yëpp tubarkàlla ku bëgg ànd ak ñun ci yoor yoor bi rek ñu ngi leen di xaar tubarkàlla leeral tv mooy télé bu mag bi tubarkàlla leeral tv dafa daal di ñëw ak innovation ci mhm. atum 2024 bi donc euh, lu bees tàkk dañ koy am saa su nekk ak ay ay présentatrice ay présentateur mhm. xibaar yi mucc ayib kon donc ñu ngi leen di xaar ñi nga xamante ne partenaire yi waaye tey nag leen di ba tey ne émission émission bi nag euh, euh, fii raang nañu waxtaane mooy thème bi waaye thème bi jeexul tey ndax euh, bu ñu insisté dugg na nag suba insha allah dina dugg waaye tamit ñu daal di ñëwaat nag ci fii raange ci feneen côté ci beneen fànn maanaam diggante nit ak nit ci bërëbu liggéeykaay ci fii raange day bari na uh-huh. waaye nag bëgguma mm-hmm. ñu taxaw ci fiiraangi baaxul baaxul uh-huh. ba kii du seetaan mm-hmm. gis ne soxnaam fiir na mm-hmm. mu def ko atu nag atu naan ko dégg ñii li ñuy waxtaane fiir baaxul <laughs> déedéet fiiraange baax na kon xam nga baax na ci benn uh-huh, uh-huh. xam nga nag nan la war a def moom uh-huh. boo amee soxna su fiir hmm. yow noppal ko ci fiiraange noo koy noppalee mooy fexeel ba du xanaa doo ko mënee <laughs> ah nga ko. mais mais Ablaye naa Ablaye mën nga léegi noo ko mënee. noo ko mënee ngay def lu dal xelam. <laughs> nëbbu bi. dafa bari ci góor ñi ak jigéen ñi. Cheikh yow euh, Père. am na doxalin boo xam ne ma gisee nga yor ko nii sama xel dal ci yow ah. Eh, la Ablaye naar xamul tax. parce que da nga sa téléphone ah, def ko code sa jabar du xam sa code loolu déjà rek fiir boobu rek yow yow décodé ko décodé xam nu ko waxee déco décodé waaw décodé woo ko tubaarkàlla kon donc liggéenti loolu d'accord ndax loolu déjà la dugg na xam nga xam nga ah, xam nga peex peex ah. man man yàlla seede na ko ak ku mën di doon mm-hmm. boo nekkee sa soxna am na nooy comporté woo sa sa soxna xelam am na ñoo xam ni mm-hmm. tey bu ñu ba guddi seen soxna bu ñu ba guddi dañoo bëgg seen jëkkër jëkkër bëgg seen jëkkër ba nga naan li mu doon mhm. te mu tëdd mukk ba seen xel xalaat ni mukk sama borom kër ma nga ci ma nga njaalo wala ma nga ci leneen mhm. duñ ko xalaat que lan moo duñ ko mhm. que seen jëkkër moo leen ko wan la gis nga dafa am loo xam ni buñ ci taxawee naan fiir baaxul dañ koy ndamoo dañ koy ndamoo mooy sama soxna dafa fiir dafa dof moom nangam nangam non non yow yaa tax mu fiir dëgg na lu ko nit di wane rek parce que sa comportement moo tax gis nga jigéen mhm. war ngaa am melokaan boo xam ne tey sister mhm. tey war na maa nekk sama borom kër mhm. mën naa dem tukki naa nekk sama borom xam dañuy dem ay Qatar am na jigéen dañu am Dubaay bàyyi fii seen borom kër dem Dubaay jënd du leen xalaat na jigéen ñoo xam ne dañuy dem Turki jënd fa say bagage nekk fa lu mat daanaka juróom-ñaari fan ak nangam mais seen jëkkër xel mu dal parce que dañuy xam ne sama soxna sii day ak fu mu mën a nekk lu mu fa mën a nekk yàlla xam ne day doo ko def mukk lu bon est-ce que yaa ngi dégg mhm. maam loolu nag doxalin la ci diggante góor ak jigéen kon daal di ëpp solo ci fiiraange mhm. sama soxna fiir na sama borom kër fiir nga mhm. yow noppal ko ci fiiraange ni nga koy noppalee mooy fa ngay dugg ak ci li ngay nekk na koy xam lu mu ci mënta xam fekkente ne mën na ko xam ba dëgg-dëgg mais na yow dee ko gëmal ni man mii day wax dëgg yàlla ñëkkuma ci lu dul di dox ci ab liggéey waaye xalaatuma mukk di la boole ak leneen gis nga boo demee ba takk mënta ñàkk xam nga ne xol la dëgg la maa la takk dama lay bëgg mhm. waaye man mhm. mhm. ba ca ñeenteel kenn ku nekk am na loo war a wër ci moom wërsëgi tolloo mbiri tolloowul tey damay takk jigéen rafetaay laa maa gisaat gisaat keneen nekkaat bëgg la ba indi la su ma demee ba gisaat keneen ma xam ne kii mën naa doon sama soxna. noonu ngay defaat non dama koy wax ak yow. Ablaye Naar am na ñoo xam ne Ablaye Naar ñoo xamante ni boo bëggee dara boo leen ko waxee du am. am mën naa ko Ablaye Naar. Hmm. kuy denc ci la da ngay bañ ko yëndu. dëgg la. yëndu gi Naar. Hmm. Hmm. maa man yi ci mi tas na réew mi <laughs> gis nga tey bis boo amee aaw di labatub ñaareel naan dama dëggoog dama bëgg xelam dal. ni ko doomi diw laa bëgg Grand Dakar di hee yàqu nga am na ñaari bàjjen yoo xam ñaari ndey yoo xam bu nu xëyee allo taxi la ñuy jël ci yow la ñuy yenn ba ngoon jot nee naa la euh, euh, euh, peex waaw fi mu toll nii fii rang gi thème bi ni ñëwaat bu ñuy indi bi sooba yàlla lëndi day ci loolu la nekk ci loolu la yu dugg na xam naa ne bu ñu ci duggee rek nga faram-fàcceel lu doy waar ndax maamani tubaab yàlla yàq na réew mi de maamani gis nga uh-huh. maamani ñi fay dem ña fay dem xam nga ñu dañoo am problème mu suwaa nag ci soxna ak ak jëkkër ñun problème bi loolu la. problème mu suwaa la. problème du caaxaan moo tax damañ la. gis nga problème bi ngay dégg ci wujje lépp lenn la. maanaam dafa dañ ko kiirute leeral maanaam am na ñoo xam ne tey jii yàlla seeta na ko ay jigéen xam nga ñu xam naa ci ñu bare bare ñoo xam ne ñu ngi ni di toog tey bu ñu jàppoon jigéen indi teg ñu ko sa wujj rek ñu ne la waaw. parce que ñu ngi koy suuraale waaw mais xoolal li xew léegi sa kër moom sa kër. waaw. takk nit ñu la ko dugg ci kër gi. waaw en général ñi loolu noo ko jàngatee. amee benn def fenn na góor mhm. ñu am problème. Mhm. Mhm. parce la yàlla dem yàlla def ñu dem ba dajeeg keneen bëgg ko tàkk ko. jëlal ko appartement. am na ñoo xam ne dañoo tabax seen kër ba ñoo ko moom na fa ne jigéen du ma fekk. dëgg Euh, te li gën peex am na lu koo ah. nga man lan laa mënut comprendre mhm. wala ñetteel bi fiir am na de pourtant ñaareel wala ñetteel buy fiir a ñoo ñoo gën a di yow ñun mujjee tax mais aaw ñoo gën a fiir yow aawo fiirul ñaareel di fiir mhm. ñaareel koo takk mu am ku mu fekk si xanaa mu fiir dafa dem fiir nekk loo xamante ne da koy da koy da koy da koy indaale waaw dafa dem ba daa nekk jikko waaw dafa nekk jikko xam nga jikko dama lay wax booy dugg boo dee séet waaw ñu maye la mag ñi dañ lay wax boo amee sa fulla bàyyi ko sa càmmiñ mu yore ko këram. dëgg la. boo amee waxtaane na ko denc ndax kër jàmbur nga jëm. dëgg la effectivement. dafa am benn mag moo xamante ni dafa benn am benn xaritam buy waral doomam. Mhm. bi muy waral doomam. Mhm. mu dégg mu ne ko boo demee. Mhm. nanga xam ne kii ñu la may sab nawle la. xam ne kii la may sa mbokk. dëgg la na xam ne kii ñu la may sa moroma. mag nga wàññeeku. Mm. dem këram toog. ñu ne ko waaye yow diw di waral doomam ak ni ngeen demee yow ak moom. ñëpp ñëw kilifa yëpp ñëw nga war a ñëw toog yëkkati ay kaddu te yow ngay borom xam-xam ñëpp seet bu ñu waral fii yaa koy yab ñëw mu ne ko damaa jëb bundu kër ga sëy ba tas te yegsiwu ma. sa doom da ko jox borom kër monsieur Ngango na boo kii sa nawle la kii sa moroom. Mhm. da nga ko sa sang. sa sang la. sëy ba daa tas mhm. moo tax yegsiwu ma. dëgg la. doom boo koy maye da koy xamal ne ko kii ñu lay may. dëgg la sa moroom. yaayam na nekk sa yaay. Mhm. baayam na ne sa baay soo demee na ko jaamu ndax seen la neex am lu neex amul fenn fi na bari na booy taxawal ci mbedd yi seen ndey leen ko yóbbee de. mu mhm. ngi ñu jëkk ña dañ daan dem tool ba 11h jot ñu wàcc jaar ca dàgga ja dem jël dugub yóbbaale bu demee taal añ bu ñu taalee añ ba pare di di di bojj dugub ji pour tong ci reer. dégg nga loolu xanaa xam nga liggéeyu ndey doom. Mhm. ku rek la perte rek xoolal sa yaay. mais perte dooguma la foofu. Euh, am na li nga ne am na ñoo xamante ni dinañ yàq seen liggéeyu nday mm-hmm. mais am na nday yoo xamante ni aussi ñoo yàq seen seen seen mm-hmm. wayu ëllëg doom xam nga lu tax parce que nit mën nga fiir sa jëkkër fiir ko fiir ko fiir ko fiir ko ba pare mu soxla la sax nga teeku sa bopp ba ma am ba nga judd ci loolu ah. doon di bu juddoo est-ce que doom dina dina dina ah. baax ah doxalin wu ndax nga war a xam ne bàyyi si la bàyyi faale daan na ñetti doomam

maam moo la sàkku donc mm. mm. bu dee boobu lal soxna si moom mooy sekk mooy mooy moo maam moo ñëw fekk si góor gi dëgg la digg lal dañoo daje mm-hmm. Mm-hmm. jëlagub lal góor gi moo fekk soxna si mm-hmm. maanaam leen lu ca nekk am na luñ ko faram fàccee ak atte yeeg nag jàngat ban ca def ban ca def jaatu na ah. waaye nag gis nga peex dugg na fenn léegi gis nga man man li ma la wax léegi gis nga man man na maa toog naan la damay takk naan la bu amee soxna naa takk ñaar ba ñett ñett ba du ma du ma ay nekk ci ay monogamie yi mhm. dama koy wax mais mën naa ko bañ a def mën nga ko bañ a def dëgg la xam nga gis nga peex mhm. gis nga góor nekkul ni man damay takk damay takk tax na boo takkee da ngay takkaat xam nga lan la mhm. mais mën ngaa takk ab aaw aaw bi doy la sëkk sëkk sëkk féetale fépp mais mën ngaa takk mën ngaa takk sax ab aaw takkum ñaareel aaw bi gën ñaareel bi mais du waaw mën na nekk aaw nag gis nga aaw yi euh, du ci ñàkk nag yenn saa yi du ci ñàkk ay exception du ci ñàkk yoo xam ni dëgg la daanaka moom aw pëggit lay doon ci wet waaye nag mhm. aawa yu baree baree bari wax dëgg yàlla li ëpp ci aawa yi gàcc nga la am dëgg la noonu caaxaan lu sikk sikk di fii noonu caaxaan parce que parce que da jël ñu ndaw mhm. àtt ci ñu bari maanaam tey da ngay dégg ñu la ab aawa takkal nañ ko wujju def na nangam déedéet xamal ne aaw bi ñu takkal wujju tey mu jam nit aaw bi ñu takkal wujju tey mu toj kër gi aaw bi ñu takkal wujju tey mu soode mhm. xamal ne am na aaw boo xam ne takk jël na xaalisam. takka jox ko mu takki waaw. tubaab kooku règle ba gis am la ñëpp ñëpp yow am ñu gedd seen cër foo koy àtte mhm. te tey koo fi ñaareel la am aawala fekk. dëgg boo fi gis am aawala fekk. waaye yenn saa yi nag ah, ñaareel ñoo di fiire aaway. ñaareel yi sonal ñaareel. mooy day day jeex maa ngi koy wax léegi. moom nga wax léegi maanaam loolu mooy dëgg dëgg gàtt xel. Mhm. tëxit. Mhm. dof. a yóbbu lépp xamul foo koy yóbbu. dëgg la gis nga ñaareel. ndeysaan euh, am na ñaareel boo xam ni yàlla seede na ko dem naa seeti ko ci kër mhm. samp laaj-laaj ni kii moom ndax soxna la ci kër gi wala lu mu doon ci kër gi mhm. maanaam ndax ni mu baax maanaam mhm. billaahi wallaahi taala aaw bi dama koo fekk ci kër gi mu toog ma damaa jàpp ni aaw bi gan la bi ñaareel bi moo koy defal lépp maanaam ñaareel bi da koo jàppe comme yaay non du caaxaan yàlla sedd na ko kër gi damaa ñëw fekk aaw bu toogee lu mu laal ñaari ñu bàyyi mais nga aaw am na aaw yoo xam duñu nangu xam duñu ko nangu dañ hmm. jàpp ne kii moo ko def day nangu sama place te daa sëy si ma sëy si rek jéeg la may nga suñu maam yi li tax mm-hmm. mm-hmm. xam bu njëkk da nga daan yor ñeenti jabar boole leen ci benn kër ku aaye nga jox ko aaye mm-hmm. boo nekkee gan ñëw ci biir kër gi doo xam ko aaye doo xam waañ wa bilaay non père bu séddalee añ jotee. Mhm. ka togg day togg ba pare. bala moo yàq day dem wooyu ñëpp. day wooyu ñëpp wala moo wala moo aaw bi ne ko ñëwal séddale. dëgg la nga mooy séddale sax kay. nga mooy séddale. aaw mooy séddale moom. aaw mooy séddale lépp. Mhm. bu borom kër bi tukkee ba ñëw bu indi sëriñ. Mhm. moom pare na xamul lu déglu moom ñooñu ñooñu dundu mais léegi ñu nangu da bokk appartement nu ñuy bokkee kër. moo ma jaaxal. fii daa ngi moo tax moo tax may la góor ñi dañ cee am part. mais nag mais nag góor ñi tamit dañ ci am part de responsabilité. mooy mooy góor ñi parce que gis nga boo yoree jabar xamal ko ni man li war ci yow dama koy def. dëgg la mais li yàlla na ma ci man ak li ma bëgg ëllëg moo ngi ñëw. moo ngi ñëw. waaw man sax xam takk naa ñeenti jabar. yow eh. peex mii waaw. Hmm. a naka tamit daanaka laa toogal de. takk naa ñeenti jabar. waa léegi doo dundee fii raake yow bi takk ñeenti jabar doo dundee mais xaw na maa dee. fii damaa mu jaag wekki ñaari pono yi sax bàyyi oto mi daw ñaari pono yi. jërëjëf. dama mu jaagu wekk ñaari pono yi. <laughs> waaw bàyyi oto bi dawee deux pono ndax bopp bopp bu rëy tey métti bopp bu ndaw baax na lu wér nga wax de ay tubaarkàlla yow gën a amal ko ñeent mais a wax lu dundee. kay waaw kay a wax ngi nii maanaam kii moom ku toog la firnde gi nii firnde man gis naa gis nga gis na réew am na ñoo xam dem nañ ba sax ñu nekkal bëggatul leen a gis ndax firaange ndeysaan gis nga fiiraanga bu bari boo demee ci sa ñaare mu lay bëgg rey uh-huh. boo demee ci sa aw mu lay bëgg rey da ngay dem ba ñoom dan lay soof dañ lay mais dëgg la bul njaboot wala nawle wala nit ñi lay dégg barki Seydunaa Muhammad da ngay génn ci ñoom dëgg la bëggatoo leen a gis dëgg la boo leen joxee dépense jéppi leen mm-hmm. boo leen xottalee mbubb jéppi leen mm-hmm. su fekk événement jotee nga jéppi leen mm-hmm. sa doomu bàyyi yeeg sa nawle yi ak bokk yi rek ñoo la ci ba dëgg la waaye bu doon bëñ boo mën a wekk sànn na koy wekk sànn ndax firange ndax firange góor da nga koy bàyyi mu tranquille am na ñoo xam ne fii tax seen sëy de automatiquement ci jigéen benn ah. coow fii rek a tax seen sëy yàqu mais yaanaa bëri na di xaañeeka jël ay bras de fer di ko dóor nit ñi billahi wala mais mais sëy benn sëy daa neexat du ci bari ndax firange du caaxaan de démb gis naa benn cas mais sëy yu baree bari benn cas bu doy waar benn ndaw soo xamante ne jëkkëram da ko def jour anniversaire am umpaañam moo ko jox cadeau mu jàpp ni tubaarkaala gelam ak ko jox ñu bëgg ray jëkkër ji bëgg ray jëkkër ji nga war a xam ne kon fii doy na waar sa yëpp naroon a yàq noonu rek. ñu nuyuwaale suñu yaay nag ami joon bu baax ñu xam nga mm-hmm. sistaram dëgg la li ngay waxtaanee wax naa la buñ doon waxtaan fii ba junni at. du jeex maanaam tey bu nu ubbi woon euh, ligne bi nii. ba mm-hmm. nit ni kar woote. bu la waxee lim dund ci fiiraange naan ko déedéet nit nopp itam. ñi mm-hmm. la jëm jamono jii ma waxee maa ngi koy dund. am na ñoo xam ne tey xam nga nag problème bi ni nga waxee léegi góor ñi mm-hmm. am na ñoo xam nii may waxee yow yàlla seet dañu bëgg a takk ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel mm-hmm. bëgg nañu ko benn soxna waaye ñemewuñ ko ñemewuñu dëgg la ñemewuñ ko mooy mm-hmm. ñi nga xalaat ne buñ ko defee say seen kër tas mais parce que yow yaa ko teg sa bopp te tàmbali yaa ko teg sa bopp ah, waaw dëkk loo am denc lu ma am bokk fu war a ànd dëgg la soxna xam naan la kaa ñu dëkk kaa ñu dëkk loo am dencal lu ma am bokk ak yow yàlla na yeex su ma fi jógee lu ma fi bàyyi nga jël yàq say doom fulla ak fayda da ca war a am mais nag mais góor ñi nga xam dañu fiir ba seen jabar bëgg sax mu liggéey ñooñu yenn façon góor a tamit ah mais nag am ñoo xam dañoo fiire seen jabar ba du bëggul am na fiir boo xam ne dama koy d'accord de ah ci naka am na gu may d'accord man am na koy d'accord gi may d'accord Ablaye booy d'accord gi ngay d'accord mooy gan mooy ban <laughs> Ablaye Mbaye nga gan laa d'accord comme wax léegi ah. fiire sa soxna mhm. ba doo nangu mu génn mu génn waaw a mu def nangam xam nga lan la kooku da nga koy wan ak mbëggeel maanaam fiire ko ba lépp. non mais Ablaye am na yoo xam du mbëggeel de. Ah, du mbëggeel moos non ah, des. famille bonne nag laa lay wax. mais fi ma fi ma d'accord laa lay wax. xam nga fan laa da nga wax léegi ñu ne mën nga koo fiire. Mhm. ba doo ko nangu mu génn ak nangam. Mhm. yooyu yëpp ay feetu. Mhm. maanaam firnde la. waaye nag dafa am bu fekkee ne da ngaa ñàkk moom ci ci moom confiance. boobu moo bon. fii mooy da bëgg tey maanaam sa soxna tey ma am la mhm. bëgg naa la bëgguma nga génn mhm. bëgguma nga génn nit di la xool ba am ci yow nangam ak nangam maanaam tey fii la localisation pour la la tamit mais nag mais nag am na leen am na leen de waaw maanaam ñàkk ci yow confiance moo tax soo génnee ay localisation bi ngay wax nii mhm. ma lay topp xam foo dem ak foo dugg loolu bokkut ak fiiraange loolu ñàkk confiance la moo xew ah confiance ak fiiraange bu leen séparé non ah kay ah kay noo xam mais mën ngaa bëgg nit xam nga xam nga Ablaye Ablaye xam nga lan mooy problème bi waaw Eh, gis nga am na góor ñoo xam dañoo gëmul yàlla. gëmul yàlla. seen bopp yi tranquille mhm. am ñoo xam ne fi mu toll nii fii ñuy def seen jabar yi ñu ngi bëgg a liggéey. Mhm. te nekk ay jullit pire nekk jigéen ñi jub. dëgg la bëgg a daane seen doole pour jàppale leen jàppale seen njaboot. Mhm. ndax chaque jour loo bëgg ni góor defal ma ko dafa metti waaye moo tax mun def dara. bilaay tëj leen nag dafa metti sa jabar yow bu la yàlla mayee sax war nga kaa mën a yëkkati. benn 4 millions wala 5 millions ne ko demal ubbi boutique. mais jàpp na dama def nangam. ndax soo amee indi su ma amee indi ci la kër gi di gën a neex kër gi naat bi lay walaay mais genn wàllu jigéen ñi instant yi a tëj ci appartement yi ñu ngi am stress stress feebar ndax fiir ndax fiir fiir gu ban fiir la nga seen jëkk waaw ah, fiirum dox rek ndax njort nañ ne suñ génnee ñu def la leen de waaw waaw xam nga kook nag moo ko wane xam ngeen problème lool la maanaam ci kooku la de ah mën na non mën naa bañ a nekk ci kooku de ah, xam nga yoo moo ci ëpp ci moo ci ëpp yàlla seet na ko du caaxaan dafa am ne non du caaxaan dafa am ah. jigéen ñoo xam ne nu ñu leen di fiiree fiire gu ëpp gi ba mu jar ñoo tëj ci appartement ak nangam liñ xoolal la mais yow boo man loolu man loolu d'accord a fiire d'accord naa ah. man d'accord naa man su ma amul ci confiance dama lay bàyyi nga dem mais am na coono yoo xam doo ko jaral gis nga nit su ma la takkee dem ba amatuma ci yow yaakaar ci ni ngay dox ak ni ngay waxe dama lay ba nga dem mais bëgg dafa fort bëgg dafa fort waaye nag am na fiire comme ngay wax nii. Mhm. fiire nit ba nangam ak nangam mais lu ci ëpp boo ko gisee kanay fiire am na yenn comportement wala yenn doxalin am. yoo xam am ñoo xam ne amuñu benn comportement. seen jëkkër a fiir. benn comportement. dañ koy baab ku ne kuy xaritam sax ñu koy boole dama bëgg liggéey. ñun ma dimbali ngir yàlla ma liggéey. Eh, peex Ablaye naa région ñu mais jigéen ñi mais jigéen euh, ñi. Euh, temps bi jeex na eh, borom kër yi borom kër ñuy liggéey. ñu ngi ah nit waaw moom la lay wax moo tax ma ne la moo tax ma ne jigéen ci melokaan bi la comportement bi la dafa am noo xam ne wax dëgg yàlla yéen a ngi topp seen tàngaay yaram wala seen yaram tàng moo yaram gis nga li ngay wax nii waaw benn côté am naa ci ak yow waaw parce que nit bu la firee xay na yaa def li tax ñu firee la mais am na ñoo xam defuñu dara dinañu dagg de temps bi benn qualité dinañu dagg de tubaarkàlla te suba am na tubaarkàlla gisoo dinañu dagg <laughs> te suba am na tubaarkàlla kon ñu leen jox rendez-vous mhm. ba demee insha allah 13 ba 14h ñu ànd ceeg euh, Ablaye Naar ak mhm. ki nga xamante ne moom moo di euh, Baye Zal waaye demee nag insha allah am nañu fi invité euh, ki nga xamante ne moom mooy Nogay Nogay Kara insha allah demee dinañ ko retrouver fi nga xamante ne moom moo di leeral penc mi fi lay leeral lépp tubaarkàlla ñu leen jox ngeen tàggatoo Ablaye Naar ba